ministre des finances bi nga ni mooy rek budget moom pour mu mën a dem feneen defe ko ba nga xamante ni mooy assemblée ba Ousmane Sonko loolu nag pour li am solo mooy man dama nekk ki nga xamante ni askan wi rek moo ma ñor mooy yaakaar ñi nga xam li ñu tax taxawal tey te def ko tegul si yoon parce que lii bokkul ak ay communication yoo xam ne Ousmane Sonko moo ko c'est pas officiel yaakaar naa fekkoon dafa bind assemblée du ma ñëw wala maanaam ay ministre bi wax ni man du ma ñëw su boobaa noonu jël ay dossier waaye communiqué boo xamante dañ ko def yéen ngeen daje wax ni kat comme faalewul assemblée ñu de mun ñoo respecté li nga xamante ne maanaam mooy suñu tradition bi nga xamante ne trente bii nii lañ war a tëj après léegi maanaam jéem a xool nan la ñu mën a def section euh, extraordinaire encore pour que jéem def loi de finances rectificative bi comme ni nga ko doon defee def si jàmm tàggoo si jàmm saafante ñëpp tàggat ko ñu mën a liggéey pour xeetu réew mi mais gis naa ni Sénégal ñuru leen li la ñor mooy affaire politique affaire politique boobu noonu il faut ñu génn ko ci Sénégalais yi ñun pour que ñu mën a wax Sénégal dañoo sonn Sénégal dañoo yàkkam dañ sonn aussi Sénégal dañoo war a taxaw ñun ñi nga xam ne ay taxawu leen mais ñii ñu gis nii ab xeex ab xuloo tàgg sante werante yaa wax lii waxuma lii wujuma sisis wujuma assemblée nationale tey léegi ab xeex suba waa léegi ban Sénégal la ñu nekk loolu moo tax may laa si appel société civile kilifa diine yi nañu xam ne Sénégal dugg na si guta boo xamante ni bu ñu amul dañu am crise institutionnelle boo xam fa lañ jëm ndax tey ji ñoom pare nañu pour à partir de lundi prochain ñu éclancé benn procédure boo xamante ne pour réforme constitutionnelle réforme euh, li nga xam mooy réglementaire assemblée parce que man dinaa déposé proposition de loi ci assemblée nationale ngir que ñu intégré li nga xamante ni mooy article 97 ak 98 ak 99 bi nga xamante ni moo nekk ci règlement intérieur assemblée ngir premier ministre mën a ñëw def déclaration générale alternative dinaa ko déposé bu neex yàlla fii ci pencum ndaw réew mi mais gis na ni ñoom pare nañu aussi tamit pour proposer ay loi yoo xamante ni day tax président de la république am sañ-sañu ak maqaama pour tas assemblée nationale te loolu ñoom bu ñu ko defee yaakaar naa ni mën nañ ko jàllale parce que député yëpp dañ ko wax parce que Macky Sall bi mu fi dugalee loi boo xam ne dafa bëggoon tas assemblée nationale à tout benn crise boo xamante ni bu waxtaan amul yaakaar naa liggéey du am kon maa ngi laaj appel président Bassirou Diomaye Faye na woote waxtaan nu mu gën a gaawee député tey dajeeg ñoom ñu mën a xool nan lañu mën a intégré waat lépp waxtaan déggoo juboo pour que maanaam ñu mën a amaat Sénégal parce que Sénégal Sénégal kii Sénégal kii Sénégal ma la.